Ansoumana Dione maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ndeye Comba. Ansoumana Dione 10 octobre bi lee la ñu jagleel wàllum santé mentale ci àdduna bi naka ngeen koy euh, célébrer yéen waa ASSAMM. waaw Ndeye Comba euh, dañu am mbetteel nag. am naqar bu rëy. ndaxte le ministre de la santé et de sociale Ibrahima Sy. moo ma dalaloon ci benn audience. ci weeru juillet 9 juillet su ma juumul mu dalal ma ci audience ma proposé ko ne journée mondiale santé mentale bii di ñëw pour ñu amal ko ci suñu centre bi fii ci Kaolack mu nangu loolu joxe ndigal le directeur de la lutte contre la maladie ak le chef de la division de la santé pour que ñu waajal bëccëgu 10 octobre bi fii ci centre bi ci noonu te la ñu amal le premier août benn fanweeri août benn réunion ca ministère de la santé ñëpp teewee ko médecin chef bu Kaolack médecin chef bu district bu Kaolack directeur de la lutte contre la maladie chef division santé mentale kilifa yëpp teew association yëpp teew ñu amal benn réunion ñëpp kontaan ñaareelu réunion bi ñu amal ko ñaar fukki fan ci weeru août ñëpp teewaat docteur euh, Aboubacrine Sarr mooy conseiller bu ministre bi en pharmacie moo jiite woon yooyu les réunions ministre bi sax bind benn bataaxal gouverneur bu Kaolack ne ko waajalal bëccëg bu ñuy màggal Kaolack ci centre Assam bu bu defee ñëpp mën ko mën teewee waaye ci ñaareelu réunion bi nga xam ne woon ñu ko amee woon ci salle de réunion bu direction de la lutte contre maladie professeur Jean Augustin Tine wax ne fekkente ne dañu maintenir maanaam bëccëg boobu dañ koy célébrer ci centre assam bi ñoom en tant que psychiatre duñ si ñëw foofu nag kilifa yi jiite réunion bi xam na ko ne ko ministre bi moo décidé lii et que ci ci centre assemblée lay amee léegi nag bañ fa jógee xam naa ñu daal di yey nopp ministre bi ministre bi nekk koo xam ne ni amul fit sàmmul kàddoom ñu changé liggéey bi ñu bëgg a conseil départemental bu Kaolack démb ci talaata bi juróom-ñetti fan ci weeru octobre ci la benn ndaw jógee direction régionale bu santé bu Kaolack ñëw fekk na fii ci centre bi indil ma benn convocation nee na pour célébration bëccëg bi ci conseil départemental ma ne ndaw si ma ma ne euh, ndaw bi ñu yebal boo demee nel ñi la yebal jëluma convocation bokk ma ci journée bi ñu def nii buñ ko paree bu buñu kenn seet ndaxte man jàpp naa ne bu ministre bi demee ba joxe kàddoom ba benn gouverneur bi Kaolack ne ko bëccëg boobu ñu ngi koy célébrer ci Assam ci centre Assam dara même bu doon dee sax waru ko woon changé encore que ñooñu di kaas ñoom médecin yooyu di kaas ñoom bokkuñu ministère de la santé ñoom ñu ngi bokk ci ministère de l'enseignement ñi ñi ñi nekk mbirum santé mentale nekk ñu waa ministère de la santé waa ministère de l' enseignement la kon nga xam ne mbirum santé o au Sénégal mënul baax te du mos a baax tant que fekk ñu ngi ci loxo yi nga xam te ni mooy ces médecins psychiatres yi nga xam te ni ñu ngi dépendre ci ministère de l' enseignement supérieur di liggéey nag ak waa ministère de la santé moo tax il faut le président Bassirou Diomaye le premier ministre Ousmane Sonko nañu xam ne amuñu un ministre de la santé en tout cas man Ansoumana Dione ñun waa ASAM ki ñu gis nii bu fekkee ne moom lañ yaakaar ngir Sénégalais yi seen wàllu wér-gu-yaram mu ñoŋ ah ñoo ñooñu nga seen bopp ndaxte nit ki bu demee ba mënul sàmm kàddoom nit ki bu demee ba bu naka la ministre di waxee directeur di wax un chef division di teggi seen wax ñun nag bu leen neexee ñu wax génn ci waaye ñun am nañ suñ fulla am nañ suñ fayda seen caaxaan yooyu ñu nar na ci ëllëg ñun duñ ci dem parce que bëccëg bi association yi ñoo ko moom médecins yi moomuñu ko gouvernement bi moomu ko association yi ñoo ko moom waaye nag comme dañ ko poqati suñu loxo ba noppi bu ñu see woo ñun su boobaa da dañ la woon ne am nañ fulla am nañ fayda waaye nag di gën a yées mooy ñun suñ centre bii ci Kaolack liggéey bu rafet bi mu liggéey diggante bañ commencé ak léegi ñoom loolu lañ bëggut a gis loolu la bañ sénégalais yi xam ko te sénégalais yi xam nañ ko te gis nañ ko ndaxte ca Tëngéej ca dëkk boo dem fii senegal ay nit jógee nañ fa ñëw fii faju fi ba wér ba ñibbi kon bëccëg bu mel noonu daf doon jaadu ñu sénégalais gis ñun asam suñu liggéey ñëpp nañ ko rafetlu ñëpp ñu teg seen bët waaye nag bu fekkee ne ñoom te yéene mooy nëbbuñu mooy ñoom xamuñu li xew. tey ji Ansu lan mooy situation wu ñi am feebaru xel ci réew mi rawatina ñi am feebaru xel ba noppi di taxawaalu ci mbedd mi. waaw euh, seen situation na mu meloon rek daanaka noon la mel ndaxte boo jëlee li ma lépp nii da gis ne Sénégal amuñu ay fajkat yu doy. ci Sénégal boo demee ci région yi amuñu fu ñuy fajee moo taxoon man ma ne nañu ubbi benn filière ci ENDSS bu ko defee ñu mën a former ay techniciens supérieurs en santé mentale ndaxte loolu rek moo mën tax ñu mën a am ay fajkat yu doy waaye boo jëlee ñu ne ci mbedd mi ñun ñu ngi fiy bay suñu waar fii ci Kaolack daanaka lu ëpp ci ay nit yu nekkoon ci mbedd mi faj nañu leen ba dellu leen seen ay kër boo demee ci Tëngéej ay nit yu nekkoon ci mbedd mi faj nañ leen ba delloo leen seen kër te Dakar jël nañ fa ay nit faj leen ci mbedd mi bugg leen seen ay njaboot kon ñun au moins ñoo ngi def suñ kéem kattan te am nañ yaakaar fii ak juróom at Sénégal danañ fexe ba la fay dox ci mbedd mi dootul bëri su fekkente ne nag suñ borom dimbale nañu te am nañ yaakaar ne suñ borom danañ dimbale. ba ñu continuer di am koppar bu doy ak jumtuwaay bu doy ngir ñu mën a jàppale ñu ne si mbedd bi que ñun suñu liggéey du laaj kenn dërëm lépp ñun ñoo ko jël en charge ci wàllu lekk ci wàllu garab ci wàllu consultation ñun loolu yëpp ñoo ko jël en charge kon tey dangay gis ne kilifa yi ñu ŋànk wér-gu-yaram Ibrahima si ci boppam ak ñamu nekkal xamuñu jàngoro bi ni mu garaawee situation bi ni mu li bu ñu ko xamoon dañu top ay psychiatre yoo xam te ni ñoom wàllu faj bi kese la ñu amee waaye association yi la communauté parce que bu ñu fàtte ne kuréel gii de organisation mondiale de la santé moo décrété moo tànn fukki fan ci weeru octobre pour que association yi au moins ñu am benn bëccëg boo xam ni ci la ñu mën a waxee seen ay soxla ci la ñu mën a sensibiliser askan wi pour que nit ñi ñu mën a xam ne ku amee xel dana wér adduna bi Sénégal dafa am benn jikko bu ñuy tàmm di wax naan dof du wér loolu boo ko déggee mooy ki feebar na ko bàyyi muy feebar dof dina wér boo ko fajee dina wér ñaata nit ñooy naan garab ay kilifa laa lay wax nii ci administration bu Sénégal di jël garab di def seen liggéey comme ni mu waree kon bu ñu waxoon Sénégal yi ne ku feebar buñ la toppatoowee di nga wér te boo ñëwee fii ci centre Ansoumana Dione ñu won la ay nit ñu fi fajoo boo wér su boobaa di nga gis ne kon képp ku am mbokk mu feebar di nga sawar a dem toppatoo ko waaye bu fekkee ne dañu dugg ci xelu nit ñi ne dof du wér kon kay ku am sa mbokk doo ko faj lii yëpp nag bëccëg bii nii moo ñu waral mais ñun association yi ñu waxtaan ak askan wi waxtaan ak ñoom ba ñu xàmmee ne wax dëgg yàlla am nañu chance de guérison maanaam nit bu feebaree boo ko fajee dina wér waaye su fekkee ne dañu tombé ak ministre boo xam te nii moom xelam demul ci ne ñii amee feebaru xel dañ la war a taxaw moom li mu gis mooy ay médecin yu ko xuuxal mu daw waaw boobu lay ministre nan lay mën a régler problème sénégalais suba lépp lu mu ti wax lépp lu mu mënti wax ñun mënuñu ko dégg te mënuñu ko gëm parce que ku ku ku wax te wax ba pare di ci génnaat ba ba pare ngay woo ña ko ko waxaloon ba pare pour ñu teg si la moom su fekkente ne moom mu mënul sàmm kàddoom ñu mën nañoo am suñ fulla téye suñ bopp bokkuñ seen fo yi bokkuñ seen caaxaan yoo xam te ni askan bi la ñu lor président Diomaye Faye la ñu lor premier ministre ko Sonko la ñu lor te nag dafay jot te ñaari kilifa yi ñu xam ne ñu xam ne kii di teg ministère de la santé du moom la Sénégalais yaakaar du moom la Sénégalais di xaar pour seen mbir wér gu en tout cas ñu amee feebaru xel seen ay mbokk ay seen ay waajur bi ñoom lañu yaakaar waaye nag mbokk yi ak ñi amee feebaru xel nañu xam ne ñun asam man Ansoumana Dione du ma mës a tey du ma mës a bay di ànd ak ñoom ngir bépp saafara ngir bépp loo xam ne war nañ ko mën def pour que seen nekkin mu mën a changer bu soobee yàlla ñun loolu buñ si mos jóg te ci loolu la ñuy sax ba keroog ñu gis ne situation bi sa changé na am nañ ci nag yaakaar yaakaar bu ma fekk ne mbir yi du continuer nii ndaxte kilifa yi ngeen ci réew mi muy Ousmane Sonko ak président Bassirou Diomaye fay am na ñu fulla am na ñu fayda teg ci bopp ministère la santé boo xamante ni ak ñu amee feebul xel dana ci mën taxaw. Hmm. jërëjëf Ansoumana Dione ñu ngi lay remercier bu baax a baax ci tontu bi nga tontu suñuy laaj. ñun ñoo leen di gërëm di leen sant ci laaj bi ngeen laaj lépp leer ba ñun tamit ñu ngi di sant am kat leen gërëm. voilà ñuy fàttali ni Ansoumana Dione yow yaay njiitu ASSAMM jërëjëf.